ne ma nga xam ne ma ngay commencé éliminer footballkat yi gënoon a xarañ ci àdduna wala ngal kàpp benn par benn ah, ki ci mujj yëkkee ko ah, mooy Didier Drogba mi nga xam ne daanaka Sadio Mané dab na ko ah, yi nga xam ne mooy match de poule Ligue des champions Sadio Mané jaxase nga xam ne daanaka lu toll ci fukki saison ak juróom-ñaar Ligue des champions bu ci ne jiim na caa tabbal benn bii boo xam ne dugal na ko ca wala boog ay bii yoo xam ne dugal na ko mu nekk loo xam ne histoire la ci moom ak beneen histoire boo xam ne daanaka ka nga xam ne mooy dajal muy Pep Guardiola moo yéemu ci doomu français bi nga xam ne yebbeeku na ba muy jàkkaarloog journaliste ya nga xam ne ñoo ne fële nga xam ne mooy Angleterre li leen xamal mooy Sadio Mané bokk na ci suyéer yi nga xam ne fii may wax ak yow ñoo gën a xaraj ci àdduna wala ngal kàpp bu fekkentee ni du moom sax ndax doomu français bi nga xam ne daanaka bal dafa xam nañu koy téye xam nañu koy doxalee xam si yoo xam ne moom lay dugal kon tagg yi mi ngi génnee ci ki nga xam ne ñoo war a ah, dajeeg ñoom tii ci semaine prochaine nga xam ne daanaka loolu match retour la ne ah, moo nekk Karim Benzema ah, defal ndànk ci kaddu yooyu nga xam ni ah, kii di Pep Guardiola tagg na la ko ndax yéen ñaar da ngeen a war a daje am match damay ragal mu doon kaddu yoo xam ni kaddu yi neexal la pour nga wàññi sa tànk fële nga xam ni booy dajeek moom bu ko defee moom mu am nu mu jaare ba jim laa noggatu waaye professionnel nga loolu du la jaaxal